waa mais euh, xam nga li ma ci gis rek moom mooy euh, mooy que pour la première fois damay wax damay préciser bu baax pour la première fois man boog ti Tidiane sama xalaat euh, yàgg naa ci sport bi surtout ci football bi pour la première fois kaaf nga xam ne foofu ay magu yër ñoo fa nekk ñoom ñu def loo xam ne mooy yoon dama yàgg fekkee assemblée général kaaf xam naa seen lobi yooyu ñuy def euh, dama leen di wax leen ne nag jéem nañu lu nekk nag pour Sadio Mané bañ a nekk Ballon d'Or jéem nañ ko waaye amuñu bunt parce que li Sadio maane def résultat maanaam li mu def sur le terrain deux mille dix neuf mënuñu indi keneen koo xam ne ba jox ko Ballon d'Or bi non mënuñu ko parce que. kan mooy quatre euh, ballon d'or France bleu bi bii passé kan la kan mooy le euh, le Sénégal euh, l'Africain le mieux placé c'est Sadio Mané mais forcément fii noonu lay demee mais jéem nañu nag ba indi nangam bëgg a kii Salah yóbbu ko benn waay xaritu Salah dégg nga milliardaire jéem a kii yooyu yëpp jéem nañ ñun xam nañu lépp nu mu demee mais rëccul heureusement pour la première fois la CAF def logique logique bi mooy Sadio Mané meilleur Ben Madi entraîneur u kii bi meilleur c'est le meilleur entraîneur mm. waaw c'est le meilleur entraîneur ñu jox ko kon nag logique pour la première fois CAF heureusement xam naa ne dañ di commencer di am xel xalaat euh, ñoom ñu euh, def loo xam ne mooy logique xam nga dama lay yëgal benn affaire boo xam ne moo am la puissance de certaines euh, de certains pays ci xam dafa am géopolitique géopolitique boobu da xool ñun dañoo am ay dirigeants yu ñàkk fayda yoo xam ne ñu ngi biir kaaf ci instance yi amuñu benn njëriñ amuñu benn njëriñ amuñu ils ne sont pas influents comme temps Mawade Wade ni mu influent woon nga xam ne Mawade Wade vous vous rappelez bien bi ñuy qualifié en 1994 à Tunis Coupe d'Afrique naka lañ qualifié ci këyit moom la woon. lan moo tax ñu am organiser Sénégal 92 fii l'influence de Mawade Wade waaye ñii nekk léegi fii léegi nii nekk foofu nekk ñu fa lu dul di jël ay per jëm ñàkk fayda amuñu benn fulla moo tax footballu Sénégal lii Sadio Mané gagné finale euh, équipe nationale c'est l'arbre qui cache la forêt rien ne marche ici. Euh, ñàkk fair play Mohamed Salah ak Mahrez Mahrez sax. mun naa ko comprendre parce que ca jour ba dafa amoon match man loolu sax moom bu ma indee loolu man dinaa d'accord même sax quelque part excuse bu kii la parce que moom remplaçant la fële moom du titulaire <laughs> kaay wax da dëgg. waaw waa waaw waaw léegi kii rek waaye moom moom moom euh, euh, gars yi ngi appuyé ci Sterling wala Aguero wala euh, kii De Bruyne wala Jesus xam nga ñooñu am nañu ay kii munoon na rek dem ñu mais mais gaawul moom mais Salah. salaa a été un joueur boo xam ne salaa fayul naar bi xoomam salaa wane na nekk dafa bon dafa iñaan yow nak nga mën a ñëw Sénégal jël ballon d'or bi fii Sadio Mané di sa coéquipier ngeen ànd bokk équipe mu gunge la bëgg a jël sa trophée ànd ak yow ba ngeen ñi bendoo Liverpool waaye yow sa dëkk la doo ko delloo njukkal lan la ñuy wax ci delloo njukkal dafa am solo waaye ku bon la ku personnel la waaw li mu def nag waa kaaf ñoo wax a am seen fulla je ne peux pas il faut gars yi sanctionner il faut ñu xam sanctionner ou bien génne ko ci il faut gars yi wane ko ni yow li nga def nii tegoo ko fenn il faut qu'on arrête les affaires de kii laa ay affaire star yooyu noonu san ça ne tient man d'accord ay ballon d'or événement yu toll noonu joueur di koy absenté quand quand quand Sadio Mané bi mu bàññee euh, dem kii euh, ci ballon d'or bi Messi jël lan laa ko wax ko ne yow yow non non vraiment bu ma jàkkaarloo nag moom loolu laa ko ni tegu ko fenn la preuve dafa il a manqué occasion pour maanaam def benn coup de euh, coup marketing jour boobu bu ñëwoon xam nga euh, journalisme xam journal xam nañu ne dañu naan ah des gars yi ngi naan Sadio Mané Sadio ñëpp dañuy ñëw ci Sadio Mané mu def fa benn kii marketing euh, jour boobu Mbappé moo jël place boobu rôle boobu jël ko télévision yëpp jubal ci Mbappé te boo doon sixième <laughs> waa quatrième bi le premier africain mënoon nañ ko wane mu kii kon nag dama ne absenté yooyu loolu ku koy def xamuloo sport et il faut être sportif et fair play wane ne euh, euh, voilà gis nga ñun suñu dirigeants yi ak sunu état li ñu wane tuune ci wàllu ci wàllu sport xam nga yëfu gis nga boo nekkee dans le milieu du sport ñoom dañu def ne nit ci ay dof lañu ñun dofuñu ñun xam nañu ñu ne avion bi amul autorisation d'atterrissage à Tunis c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ma ne dama laaj ñii di liggéey ci man je viens de parler j'ai parlé avec deux gars yoo xam ne ñu ngi aéroport di liggéey ci aviation kenn ki naa la nekk il m'a dit confirmé ma wan ma ay gi mu ne ma loolu amun autorisation du dara autorisation dégg nga euh, euh, démb ñoom démb munoon nañ ko def depuis démb te buñ ko defoon dañ leen koy jox amul yooyu yooyu yooyu ça ne la route xam nga lan la la réalité xam nga mooy lan euh, Liverpool ak Klopp dañoo xam ne dañuy bañ ku divertir seen joueur samedi kan la kii di joué kan la Liverpool di joué Tottenham <laughs> match bu rëy match boobu mun na nekk premier defetu kii Liverpool club <laughs> day bëgg a joueur am yëpp ñëw ñoom xam na ne bu Sadio Mané ñëwee fii nekk fii taxaw jàppal bàyyi def nii nangam loolu moo ñoom tubaab xamuñu loolu. loolu la ma ne affaire bi foofu décision bi Liverpool la jugee ñoom ñoo bañ. Sadio Mané ñëw man maa ko wax man Cheikh Tidiane Gomis man maa ko wax ñoom ñoo bañ Sadio Mané ñëw parce que dañoo am mat de xam xam nañu fii yëfu récupération politique moo fii am tappale moo fii am euh, dégg nga loolu et dama lay wax benn affaire si on avait des dirigeants le ministre des sports affaire u état la yow comment se fait-il que yow nga toog ba si yàgg nga xam ne yow nga organiser événement bu rëy boobu c'est vrai bëggoon nañu mu ñëw événement bu toll noonu yow nga koy organiser te doo jël les devants doo woo waa Liverpool état nga wool waa Liverpool ne leen ah c'est un événement grandiose c'est historique au Sénégal on veut rendre hommage à notre joueur wax yooyu am na nooy waxee ak ñoom diplomatiquement affaire bi jëm au sommet état état la ñooy waaye tamit ministre des sports Macky Sall mais ñoom mënuñu jël coup de fil euh, kii wax na dëgg waaye ñu ko waa gars yi xool nu ñuy wax ak Klopp négocier ak moom ou bien <clears throat> ñu ne Augustin Senghor yow waxal ak président Liverpool ou bien noonu xam nga am na yooyu day am pour ak kii et puis dafa am heure booy def événement yooyu day am heure waaw mu ngi ko jël démba démb la ko jël ci guddi calculer da ngay ne non pour bañ a divertir booy bi pour bañ ko euh, déstabiliser dégg nga ah léegi xam lan la damay def à 11h jet privé la à 11h mu agsi fii mu dem gars yi teeru ko mu dem ci Macky sàll nuyu jëlaat avion ne vif delluwaat. coow du am mënoon na yomb mais ay tuune lañu. dama lay yëgal benn affaire li nga wax mooy dëgg tubaab xamul yëfu tappale xam nañ ne Sénégal tappale moo fi am xam nañ ko moo tax non li nga wax yoo xamante li nga wax xam ne doo dégg moom laa lay wax ne xam nañ ne que lii yëfu tappale la. bu ñu dem foofu dañu nekk jour bi jàppal fii dugal fii nangam nangam ñu ne déet ñii daal du leen kii xam nga la nañu eh retourne voilà loolu kese la mais nag foofu nag boo jëloon devant yi en tant que autorité étatique nga jël devant yi da nga koy kii waaye yow rek organiser sa mbumbaay waaw organiser sa yëfu tappale dégg di ñëw nii récupération politique nangam nangam bëgg a ñëw taxaw <laughs> yàlla ñëw na nag. dañuy fooye suñu football bi suñu état yi dañu koy fooye mag Macky Sall moo koy fooye di koy di wa euh, euh, di koy jëriñoo pour affaire politique am bii de bii de lajj dañuy wax statistique statistique fi ma taxawee man avant ñuy joxe ballon d'or bi Sadio maane ma taxaw fépp ne Sadio Mané moo ko war a mën a jël ah kon man daal dama ko wax parce que sénégalais laa rek fa Sadio Mané dama ko teg ci ay résultats yi mu am sur le terrain léegi jëlal Belmadi ak ak Cissé Aliou Cissé def na juróomi at euh, ci kaw équipe nationale juróomi at final la rek la dem te balaa muy dem final année bii 2019 la soog a dem euh, final Belmadi 11 mois 11 mois il prend mu jël équipe boo xam ne dafa tas 2017 bi ñuy euh, Coupe d'Afrique ba premier tour la Algérie toog équipe ba tas ñu dàq entraîneur ba mënatu ñu am entraîneur ñu dem fekk ko Qatar ne ko kaay mu ñëw fekk équipe boo xam ne dara nekku fa. en onze mois il gagne la coupe d'Afrique ah léegi xoolal ñoom ñaar dëgg rek xoolal ñoom ñaar kan ma kii juróomi at ñu koy fay quinze millions indiwu fi dara final waaw balaa maa dee ba saa moomu naan dugaluma euh, xaw ma lan euh, euh, sama li ma perte barewul loolu kenn wax coupe la ñu wax ñu coupe la wax kee ci onze mois mu indi coupe kii juróomi eh, kii at moom dafa ëndi coupe indi na coupe ñun du coupe lañu soxla ñun dañu soxla ñu final woon nañu waaye waaw e kon nag Belmadi moo mérité meilleur entraîneur africain nañu waxante dëgg du question ay kii man sénégalais laa Sadio Mané bu ma nee que c'est le meilleur ci daf ko wane ci résultat am la waaye nag léegi ba ba daal sénégalais laa daal man damay wax Aliou Cissé moom fu mu toj dëgg dëgg xam nga mooy li ma doon waxee ci tappale kaaf affaire neexalaate yooyu yooyu la ñuy bàyyi yow Égypte nañu waxante dëgg nag naka la fédération bu échec fédération bu échec échec sur toute la ligne ci kaa ci moo jox leen Égypte nee nañu mooy meilleure fédération fédération boo xam ne da nga échoué sur le terrain sur le plan sportif sa équipe toog huitième de finale ah Euh, président bi fa nekkoon démissionné équipe bi yëpp démissionné loolu du échec deuxième échec sur l'organisation man mi nekkoon ca coupe d'Afrique ba benn match du fees match Égypte rek kay fees match yëpp benn feesu ci benn feesu ci ay ay ay tribune yu kii waaw loolu organisation bu baax la yoo nga jël nag euh, meilleure fédération mooy ki nga xam ne moom moo ko jël mooy Algérie fédération algérienne de football en ci euh, président boobu équipe fédérale boobu en onze mois comme Belmadi lu mu def onze mois il gagne la coupe d' Afrique koy meilleur waaw xam nga xam nga mooy li ma lay wax gis nga gis nga mooy mooy mooy li ma lay wax rek waaye yow Matip waaw kooku kat moo ko dugal ci onze bi xanaa léegi coupe d' Afrique amatul kon coupe d' Afrique amuloon waaw booy jël ci onze bi da ngay jël ñi joué coupe d' jël leen ñooñu nga jël fa sa équipe type ñooñu la ñuy wax parce que c'est le ballon d'or africain nga dem di jël koo xam ne ñëwul koo xam ne et puis Matip dafa bàyyi Cameroun 2017 dama ne du ma ñëw nga naan da koy jël ñàkk faale africain yow nga naan da koy jël voilà euh, yëfu tappale yi ñuy def dama bëgg ngir yàlla ak yonentam Sénégal bu demee ba <clears throat> booloo ñëpp nekk benn ñépp fàtte problème yi sport mooy tax sport rek mooy tax xool leen démb Sénégal ñëpp kenn de ku fi neewoon da ngay manifester ay ay ay ay ay courant kii duñ la faaye Sadio Mané football la ñuy xaaral kii ca Coupe d'Afrique bii passé bu ngeen nekkee fii Sénégal vert jaune rouge dëkk bi yëpp ñëpp booloo ah lu ko def sport Macky sàll ci boppam. moo war a xam ne que sport njëriñ bi mu ko amal yeneen ñi amaluñu ko na fonk sport delloo njukkal sport bu ko deful bu ko deful maanaam euh, lii nga xam ne mooy sportif yi duñ ko ko baal muk ci àdduna moo fi waxoon un pour cent budget dinaa ko yokk te defu ko ba léegi mu ngi suñu biir xol mu naxar